dafa am benn sortie boo xamante ne benn jeune boo xamante ne kenn xamul lu muy nuru kenn xamul fu mu bokk kenn xamul mooy kan euh, wax génn def ci presse bi wax lu ko neex te nag ñu jàpp ne ñun bu ñu nekkee ci parti dañoo war a am discipline de parti d'abord ba pare li ci gën a doy waarati mooy mu jàpp ne moom moom moo jiite ndaw ñi nga xamante ne dañoo nekk ni ñu leen woowee Benno Bokk Yaakaar loolu nekk lu dul dëgg donc doomu aadama yaakaar naa ku nekk am nga sañ-sañ

kon buñu gisé ñu ngi a lo xamanteni fenn ah da ci day jaadu ñun ndaw ñi baax ñun APR surtout pour wax li nga rétablir la vérité nit ñi xamé ko nonu kon nga ni parce que c'est un c'est quelqu'un magum jëm il a dépassé même l'âge de la jeunesse kon ci jëbi boppam la ko defee moo tax ñun ñu waroon na mën a rétablir la vérité pour lui di d'arrêter il est temps qu'on ñu gën a ñu gën a nekk ci développement ñun waa Mbour jeunesse bi lu ñu gën a tal mooy président Macky Sall effort yi muy def ci biir Mbour ñu gën ko fësal effort yi muy def pour département de mbuur ñu gën ko fësal mais ñu ku nekk ku jóg rek wax lu la neex sa morom dañu nag tey jii à partir d'aujourd'hui dootuñu mën a nangu kenn koo xamante ne dina jóg di wax benn responsable lam la mën a parce que nekkatul ci jamono jooju nekkatuñ ci jamono joo xamante ne da ngay jëkk rek bind toog sa néeg bind sa texte rek envoyé benn benn presse presse mu mu dugalal la yoo xamante ni teguñu ko fenn kon ci loolu lañ la ñu réunir wax na dañuy le ministre Oumar Youm dañ koy renouveler suñu confiance dañuy gën a gën a dooleel wane président Macky Sall ne dooleel Oumar Youm mooy doole département de Mbour ñu suñuy doole nag mooy dooleel Oumar Youm kon ñun ñoo taxaw en tant que ndaw parti bi pour bën ko gëna accompagner ci politique am pour mu gëna mëna atteindre ses objectifs parce que bu réussir ses objectifs moy président Macky Sall réussir na moy Mbour réussir na moy département de Mbour réussir na wa ben ndaw la bo xamanteni jarul ñuy wax turam mom xeyna bu sétané li dina xam dina xam xam xam kan la ndax euh, il n'est il n'est même pas représentatif dans un bureau de vote kon koku jarul ñuy wax turam mais c'est important que ñun ñu ñu ñu génn rétablir la vérité parce que nit ñi lay dégg ak mbir mi fu mi ag motax nak ñu am sañ-sañ mëna wax mais bu doon ci jëmmam dong

parce que tamit président Macky Sall la ñuy représenté kon dañu dañ ko représenté ci avec dignité dañ ko war a représenté ci fulla euh, représenté ko ci fayda té taxaw taxawinu full. ak fayda ndax tànk am na loo xamante yu am solo yo xam président mu ngi ko fiy bëgg def mu ngi ko fiy def kon ci loolu lañ am nañ wara am temps euh fësal loolu temps wu nek ci loolu mo gën ñu am temps wu naan dañuy yàqante ko xamante vraiment mu ngi liguey liguey bu am solo mu ngi def dans le département lu am solo lo xamante vraiment ñun wa majorité présidentielle sax dinañ ci revenir dañ ci revenir ñun dañ def une assemblée générale pour montrer à le plus à l'opinion publique que ñun kat taxawaay bi ñu am lii war a am moo tax ñu taxawee ci nii. ndaw boo xamante ni ci parti bi nga nekk liggéeyal président Macky Sall guddeeg bëccëg nga ñëw ab ministre de la république ak ku mu mënti doon ñëw ci sa biir commune ah, nga war a am sañ-sañ accueillir ko nga war a am sañ-sañ ànd ak moom ak ak accueillir ko xam nga lépp li nga xamante ni mu ngi ko fiy indi nga nga mën ko téye matériel parce que ministre bu ñëwee indi dara day delluwaat. bu bu fi ñi fiy bàyyi ñoom ñooy matérialiser loolu téye ko yóbbu ko ci askan bi mu mën a njariñ askan bi waa ñooñu boo leen ko waxul bañ yëgee ko feneen mais su ñëw wane seen naqar loolu loo aw ma lu ma ci lu ma ciy ñaawlu lu rafetlu di ko rafetlu bu baax bu ëllëgee di woo incité des responsables lépp lu loo xamante ni président Macky Sall da koy def ci biir commune bi wala ci biir département de Mbour bi ngalla nañu yëgal nit ñi lan moo gën a lan moo gën a yomb lu dul yëgal nit ñi même yow yow journaliste sax ci nga bokk kon yow bo demee ba yëg am ñoo xam amana dañuy nek biir parti bi te yeguñu kon nak awma lenn lu may ñaawlu lu dul rafetlu li nga fekk dina fekk ñom dem nañ malheureusement ñu ne dañ leen di téye kon objectif bi taxoon ñu leen di téye ça veut dire beaucoup de choses loolu nañ ci baye xel la tax ñu ne ñu dugg amuñu ci benn sañ-sañ parce que bu ñi ay ndaw président lañ fuñu dégg président dañuy tak seen dal daw dem pour liggéeyal ko xam lan lay def pour ñu ëllëg si biir ñu mën ko toogal ci plateau yi toogal ko ci télé yi mën ko défendre loolu rek a tax mais tax mais nag moom ñu ngi saluer le fait que jeunes yi réagir noonu parce que ay jeunes yu responsable dañuy jël lañu moom